moo nekk noonu taxaw ak kosam waaye Zilbade Junior nga ne moom tamit dina baa ngay xool ba xam ni nag ninut dina mbay Zilbade Junior waaye dina mbay mi ngi jógee écurie école de Papa ngi noonu deuxième combat ba nekk noonu ñuy waaj a sifflé ndeysaan dox si diggante Dina Mbaye ak Jules Baldé junior numéro 2 arbitre baa ngi leen wax règlement yi lim nangu lim bañ Dina Mbaye moo leen war ginnaaw waaye Jules Baldé Junior numéro 2 moom jàkkaar lool arbitre baa ngi laaj ay sixième ba xam pare nañ arbitre bi arbitre bi sifflé na génn seen diggante ndeysaan bi nekk deuxième combat bi tey nekk samedi 27 avril 2024 journée mu ñaa production Serigne Modou Niang di ko ñaanal rek yàlla na yàlla yërëm ko te jégal ko xare ko ci àjjana firdawsiya waaye grand combat mi dox ci diggante Sokh 2 bu jaxaay ak Mengu Mboro waaye deuxième combat ba ngi am ci biir géew bi Djily Mbaye Djily Mbaye junior numéro 2 attention xeex nañ génn nañ génn nañ saako baaru dóor mu <laughs> <laughs> ngi noonu arbitre mu daanu ba dóor mu daanu du am laa ilaaha illallaah daw nako jël na ko Zilbane daan na ko daan na ko laa ilaaha illallaah eh Zilbane Junior Zilbane Junior daa moo daan xool arbitre bi na Djily Mbaye moo daan laa ilaaha illallaah mi ngi noonu arbitre bi nee daan arbitre bi nee na Djily Mbaye daan waaye Zilbane Junior d'accord ndeysaan mi d'accord d'accord ko eh, eh, ji Zilbane Junior nañ ko am na ci moom ndam ndeysaan lamba jaa noonu jeex na boobu nekk deuxième combat bi oh dina mbay ko daw na daw ay supporteram ndeysaan dafa juumoon ci dernier combat am moo tax bi mu ñëw daw laay laay la la waaye waaye Jules Baldé Junior ngi noonu ndeysaan mu ngi noonu dem di wax ak arbitre yi waaye nekk entraîneur bi calmé te génne ko mu bañ laal lire arbitre bi wóorut